ngi fii Njaañ daara Serigne Khadim Gueye eh, mi nga xamante ne bi yàlla def na eh, natt bi ci kawam la daloon te dal ci suñ kaw ñun ñëpp nag ñun mbooleem sëñ daara yi nekk Njaañ ñëpp ñoo ci àndoon moom waaye ànd ceeg nag eh, sëñ daara yi nekk ci biir réew mi ñëpp ak bitim réew. Serigne Khadim boobu du septième mooy huitième kamilam juróom-ñetteelu kamilam ci la nekk noonu doon ko bind tàmbali woon ko ci weer ko nga xam ne li ci des bëriwut. Eh, muy koo xamante ne bii daara rek la xam mu ngi jàngi Jurbel ci sëñ Moustapha Guèye sëñ Moustapha Guèye yaakaar naa ku ne xam na ko sëñ Mor Mbaye Cissé moo ko jàngal ba sampal ko daara sëñ Xaadim fa la nekk eh, jàngale fa lam fa mokkalal ci ay nit ci alxuraan kenn xamul nu toll bi mu dikkee fii it jamonoy 2002 2003 yaakaar naa suma ma jamono yee la woon eh, mu dikk sampuwaat liggéey boobu mu koy wéyal fii nii ci ñu bari yaakaar naa dañu ko xamee Eh, mu koy wël fi ni nekkon ci daara yi jaayam Serigne Ndiaga hmm, soxlu wa daara ja déclarer ko ba melni daara yépp def fa lo xamanteni bi kenn musu ko eh, fa def eh, ginaaw lool nak la ber daara bopam beron ko feele ci bir rek ba nek fa li nga xamanteni bi ci lañ ko yaron rek mom ci la nekkaatoon di jang jàngal ba foofu xat ndax kër ga kër ga dafa nek kër gu ndaw ginaaw bi nek fi nekkon seen tool yi Euh, yàlla def na lotissé guñ ko sax mu ñëw fii daaw jekk euh, xam naa ci at ak tuut lay toll ñu njëkkee ma ne ko ay eh, tëb daal yàlla def na ren ji bi nawet bi dugg si la ñu doog a natt pàkk yi ba nga xam ne lotissé na ñu jox ko fi fukki pàkk yaakaar naa loolu moo waral barab bi mel ni ndax ay eh, tëb daal mu ne su ko tabax am na yu bëri yoo xam ne mënoo ko faa def kon li mu a yàgg rek nga fi def mooy lu mel ne seng yi fi def ak ak wanag yi su boobaa euh, la ci des nag ginnaaw fi ne bi mat na yaakaar naa buñ fi desiwaatee fii ak déwén ak déwén jéeg daañu xam ba xam nag moom euh, lan mooy vision euh, li fi nekk euh, ñeneen ma mi ngi toll ci deux cent ñaar fukk ñaar doo dong ak ñaar fukk. xëy na loolu mm, war nañ ko sàkk ci état waaye état moom la war laataa ñu ko sàkk ci moom ndax population bi kenn ku nekk am nga droit xale yi dañoo am droit jàng kenn ku nekk yow ay tànnal sa njaboot la nga bëgg ñu jàng ko. état nag moo la war a fekk si loola dimbale la ci ndax ñun dañu fay mbooleem li nga xamante bi nit ñu ngi koy fay di jënd di fay ndox di fay courant di jënd su ko defee euh, am loo xamante ni bii dafay delluwaat ci kees mi kon nag loolu àq yooyu droit la ci état kenn ku nekk population bu nekk lañ bëgg a jàng moo fekk leen fa defal leen fa ay classes xëy na nag euh, daara cosaan yi ni ñu mel nii nga xamante bi sëñ Xaadim fii mu nekk nii nga xam ne ndaw la loo xam dafay doog a ci buntu àdduna fàkk àll bu toll nii fas yéene fii liggéeyal lislaam loolu yaakaar naa euh, droit la ci état état mu ñëw fekk fi la nga xam ne mun fay ñàkk mu dimbale ko ci defal ko fi ay tabax defal ko fi ay classe euh, ba képp koo xamante ne bii da nga bëgg jàngal sa doom bëgg koo yar yarul lislaam soo dikkee mu mu mu cee def ndax lii muy def nii état la koy defal Eh, ndax damay faral di wax ne daara internat am na lool luñ nangu la lu waaye nag ñëpp mënuñu ko ñëpp mënuñoo fayal seen doom ndax su fekkonte woon ne léegi fii li fi nekk mat ñaar téeméer dong ak nangam ak nangam am na ñoo xamante ne bii seen wayjur sax amuñu luñ dundee kooku yaakaar naa su fekkonte woon dañu leen wax ne daara ji ko fiy jàng weeru ji da fay 30 mill kon ba xal yooyu ñooy xel nekk ay victime rek duñ xam l'islam duñ xam seen wayjur lañ ci bëgg ñoom duñ ko am kon dafa mel ne li ñuy wax école privée ak école publique daara cosaan mooy école privée mooy école publique la bëgg wax daara internat yi nag mooy école privée kon loolu privé nag maanaam public nag état bi moo ci war a jàpp moo ci war jàpp fukki loxoom ak juróom la ko ci war moom xam na ko ñoom ñu ngi ciy sàkku seen ndimbal ak seen seen seen seen seen ci war ñu fas yéene bay ko seen waar loolu rek la su ko defee nag la ci des nag seen xaadim fii li fi mokkale ci ay xale kenn xamul nu mu toon na tey bis bi ni mu tëddee nii la waaye su fekkonte ne ñëwoon nga fi lu mel ne démb wala beneen bis da nga ay xale yu ndaw yoo xamante ne bii ñu mokkal alxuraan bindu ko eh, xale yu ndaw yoo xam ne di jàngale alxuraan di ko jàngale ci njàngale moo xamante ne bii mu mucc ayib la ndax ni ma la ko waxee fi bind ci kenn kenn xamul nu mu toll seen xaalis rek naa la li mu bind ci ay ci eh, na ko juróom-ñaareen ba bii mooy juróom-ñetteelam yaakaar su fekkonte ne du woon xat-xat yi ñu nekkoon xëy na suñu borom ma naa def mu àgg bu yàgg yàgg kon ñu ngi leen sant yéen ñëpp di leen gërëm ci seen taxawaay di xam ne mm, xëy na lii moom am na la boo xam ne bi faroon jaar rek la waaye ñuy ñaan nag yàlla na fi yem te bu mu bu mu dalati kenn rek.